aouzu billahi min alsheytaan irajim bismillahi arrahman irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy saytaan ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen ndokkeel di leen nuyoo fii ci jumaay Tuuba di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sun borom mu yàggal ko fi te wéral ko ñi ngi am mbégte lool ci jataay bii nga xam ne ñi ngi fiy dalal sunu mbokk yi sunuy kilifa ak sunuy bokki taalibe di nuyu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacké mu Cheikh Amadou Fadal di ko siyaare bu baax di ko ndokkeel waaye di nuyu it sëriñ Afiye Bousso imam mi nga xam ne moo jiite daaira Muxaddamatul Xidma di ko siyaar di ko ndokkeel ak kilifa yi nga xam ne ñoom la àndal nekk ci liggéey bi mu sëriñ Abdoul Ahad Bousso Muxtaar ak sëriñ Abdoul Ahad maam Asta jataay bi nag li ko waral mooy suñuy bokki taalibe yoo xam ne ñoo bokk bëgg-bëgg ngir ndigal li nga xam ne am nañ ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha te muy ndigal lu jiitu ci ay kilifaam ci jamono yi Serigne Saliou Mbacké ci atum 2005 lañ amoon ndigal ci dundal weeru koor fii ci jumaa ji ci ay waxtaani diine ak di dogal jullit yi nga xam ne ñoo fiy ñëw ak bokki taalibe yi nga xam ne am nañ ko seen kër mën nañ ko waaye dañuy bëgg a dogsee fii ci sëriñ bi daanaka lu mat ñeenti junni wala léeg-léeg juróomi junni sax di fi daje yàlla dafa dogal nag ndigal loolu ca tàmbali ba ba léegi sëriñ Cheikh Awa Balla mu Cheikh Ahmadul Fadal mii moom ak ay bokkam di Cheikh Ahmadou Rafa sëriñ Cheikh Oumy yàlla dogal na ñoo àndoon ak opérateur économique yi dem ci sëriñ Saliou sëriñ Saliou jox leen ndigal lii nga xam ne ñoom ñoo ko tàmbali Baye Cheikh mii moo tàmbali woon lii di ko defe ci këram ginnaaw bi opérateur économie waxtaan ceeg moom ngir war koo def bi ñëwee fii ci sëriñ Afia gaaral sëriñ Afia ne leen kat fii lu ñu fiy def ndigalul sëriñ Saliou la ñu dem ci sëriñ Saliou sëriñ Saliou joxe ci ndigal loolu nag tax na moom sëriñ Cheikh bala mii mu xam ne mbir mii di ndogu yi ak lu aju ci liggéeyu jumaa ji yëpp mbiram la ci fànn gu nekk buñ nekkoon fii di lim ay taxawaayam ci wàllu matériel wala ci wàllu jàpp ci lu bëgg-bëgg yoo xam ne aju na ci jumaa ji duñ ko jeexal tey jii nag mu am lu rëy rëy loo xam ne at yi yëpp mi ngi ñëw te ci moom la jaar muy sunu bokk yi sunu bokki taalibe yi nga xam ne ñooy waa Touba Rimini muy fédération Emilia Romagna mark nga xam ne ëmb na mboolem euh, dëkk yi nga xam ne ñoo aju ci kër Sëñ Touba gi nekk Touba Rimini am liggéey bu rëy rëy boo xam ne ñu ngi koy def ci koor gi def ko daaw jeeg def ko daaw ren jii nag mu yokk lool liggéey boobu nag sëriñ euh, Serigne Cheikhouna Mbacké Rimini moo ko jiite yabal na boole na leen ak ay rakkam euh, sëriñ fadilu Mbacké ak Serigne Mourtada ñu ànd ak jëwrin yi di sëriñ Dame Lay mi nga xam ne mooy jëwrini liggéey bi waaye ak Serigne seex Kanji mi nga xam ne mooy jëwrini ko Serigne Touba gi ak Serigne Abdou Fall ak bokk yi nga xam ne ànd nañoo ak ñoom xam naa bu Serigne Dame Lay jëlee kàddu gi dana leen lim ñoom ñëpp waaye lan mooy liggéey bi mooy suukaru koor lañ indi te jàpp naa ne bu weesoo jataay bi ñu amoon ak waatu Touba Ngoy muy bisaab bi ñoom ñoo ci topp bisaab lañ njëkk a recevoir teg ci suukar te yaakaar naa ku am bisaab ak suukar ci koor am nga tàmbuli ren jii nag ñu indi ñetti ton ñetti ton yi suukar yoo xam ne indi nañ ko dolli war nañ ci benn saako muy kon ñetti tonnes ak benn saako tey jii loolu nag di lu rëy rëy ci liggéey bi di lu ci am solo ndax bu ñu xoolee daanaka suukar bokk na ci lii gën a seeral bitse bi nga xam ne mooy bitse koor bi ndax bët bu set danañu suukaree lu mat euh, ñeenti saako ak genn wàll léeg-léeg sax bu dee ajjuma wala bis yu mag yi dañuy suukaree juróomi saako ak lu topp loolu nag kon xam nga ne li koor gi di jël ci suukar bëri na kon day mel ne 3 yi suñ ko dee natt. soo ko nattalee ci fukki fan yi ak nangam moom dañ koy daal di jeexal loolu nag kon jël na lu rëy rëy ci koor gi muy ñetti ton ñetti ton yi suukar yooyu doolu it di xaalis bu bari boo xam ne eh, jàpp naa ne ñi ko jëf am na ñu taw feex lool am na ñu xéewal kon su ko defee dañuy jébbal kàddu gi sëriñ daam lay su ko defee mu jëbbale liggéey bi ak ki nga xam ne moo ci topp ci ñoom ngir jël kàddu su noppee Eh, ñu jox sëriñ Cheikh Awa buñ noppee ñu jox sëriñ Cheikh Awa Balla mi nga xam ne wax dëgg liggéey bi ci moom la jaar mu jël kàddu su noppee nag ñu jox sëriñ Afee Buso mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi mu tontu leen kon bisimilah auzu billahi mina seytaani rajimi bisimillahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julli yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu dogee ngant di jéggalu bu baax noo ngi nuyu sunu kilifa yi nu àndal ak kilifa yi nga xam ne ñoo na fu fekk di ci jiital sëñ Cheikh Awa Balla mi di ko ñaanal di ñaanal sëñ Afia waaye mboolem yi mu seqal liggéey bi di ñaanal sunu jëwriñ tam sëñ Cheikhouna Mbacké ak rakkam yu baax yi mu àndal waaye mën nañoo wax ni képp xaju ci njabootu sëriñ Touba rek commencé ko sëñ Muntaxa ba yegg ca seex ya noonu ko sëñ Abdoul bu sa waxee yàlla dogal liggéey bi itam Emilia Romagna et Marche di ci santaat sëñ Cheikh Awa Balla bu baax di ko ci ñaana laat ndax am na loo xam ne ku ko yor yéene la ko war nga koo sant xam naa kàddu gi dañ koy jël benn yoon ginnaaw bu nu waxee délégation bi sëñ daam lay mi nga xay mooy jëwri nii daayira sëñ Touba yi nekk ci gox boobu Emilia Romagna et Marche nga xam ni man mii kenn laa ci ñooñu féete dëkk bu ñuy wax Bologna di Abdoul Khadir Dia jël kàddu gi yàlla dogal itam bokk ci port parole yi féete ca kër ga ak sëñ Cheikh Kandji bi nga xam ne mooy jëwri ni barab ba te yàgg koo doone lool sëñ Abdou Fall a ngi wax ci moom yu kiimaane yoo xam ni jamono fa sëñ Mutulaa di ñëw la nga xam ni koo xam ne gis nga sëñ Cheikh Kandji léegi da ngay jàpp ni léegee ko boole ci liggéey bi rek waaye bu fa sëñ Mutulaa di ñëw itam fekk na bàngaas bi mu yor moom la yoroon ak Baye Dame Diop mi nga xam ni musta dellu ginnaaw ci liggéey bi waaye sëñ Abdou Fall mi nga xam ni jëwriñ la fii jëwriñ la fee waaye sëñ Pape Diop mii ak ñaari rakki sëñ Cheikhouna yi ñu àndal di sëñ sëñ ak sëñ Moutala euh, muy délégation bi nga xam ñoo bàyyi ko bàyyi ak sëñ Mout Cissé sëñ Mout suñ jëwriñ nga xam saako boobu mujj ñëw moo ko indi waaw ak Pape Diop mii nga xam ni. yàlla dogal na kër sëñ ba maçonnerie sax bu ñu ko fa daan def bokk na ci ñoo xay mooy ñëw summeeku bokk ci maçon yi nga xam ne mooy liggéey comme mu doon mu doon ñoo xam ne mbooloo mi ñoo jógee kër sëñ Touba waaye man samay kàddu ginnaaw bu nu santee sëriñ bi ñaanal sëñ Afia jataayam bi yal na ko suñu boroom yàggal te yàggal fi kilifa yi ndax sëñ Abdou Khadir lañ damay dégg ñu naan dana wax naan am na loo xam ne jàmbaar mayewu ko ndimbal la koy maye damaa jàpp ni lii am ndimbal la ndax nun ñu xeebu ñi doon sagari nit yoo xay kenn xamul fu ñu bawoo nu toog ci pàkk bu tedd bii sëñ bi bi mu ubbee hôpital bi sàng man daanaka ba léegi xamatuma lu may def ndax dafa bokk ci sëñ Tuubaa amul moroom yi ndax dama ko fee xalaatul woon yaakaaruma ko fi woon te yaakaar naa bari naa ci ay moroom te lu nit ñàkk pas pas pas pas bu ñu la wonee loolu war ngaa am pas pasum ni fii day lu ma lëg bu ma bëggee lu baax rek mën naa liggéey di fi def kii nga xam ne moo nu joxoon ndigalu kaasiyaatim ba yàgg benn bis mu joxoon ñu nii si ni tànnal naa leen suukar kere yàlla dogal na maa doon jottali ak kàddoom dama ni alhamdulilah ci sa biiri kàddu nag man xam naa ne nun dix tonnes yu tegalan wi di mooy mooy defar suñu biir waaw ci sa biiri kàddu nun dañuy foog dañuy am onze douze tonnes te it man maa wàtt sëñ Tuubaa nun waa Emilia Romagna xajunu ci xëy na information bi nag ñi mel ni man mën naa dese ci ñoom waaye bu jàllee dëgg rek ak ak itam mbir munoo ko am tey rek mu juddu tey taxaw tey waaye jortu naa bu suñ information jàllee ni mu war a jàllee mën nañoo indi fii ton tonnes wala treize tonnes suukar te it am naa yaakaar ni foofu lañ jëm sëriñ Cheikh bala Balla dina dinañu ci ñaanal ndax moo ni nu nii loxoom ni nu suukar laa leen tànnal te jàpp naa it du nu te jàpp naa it am ngi am na fi kon nag sëñ daam li ma war a def man mooy soññ ñi nga xam ni ñoom laa yamal ñi liggéey bi yéggul ci ñoom Emilia Romagna gépp nag waaye rawatina waa Bologna ga nga xay fa laa jóge liggéey bii kat liggéey la boo xam ni lu ci waay def yàqoo ko te it ñi ngi koy jox xam na fi ñu koy def ndax noonu ko sëñ laat waxee ñi fiy ñëw am na ñoo xam am nañ ndogu seen kër waaye dañoo taamoo ñëw ci pàkk bu tedd bii man mii de sàng rek dama tëdd sama kër baay mën a xalaat naa bu ma umee koor li ma war a jëkk def mooy fexe ba ndogoo ji jumaa ja wa wallahi asib boobu yéen ñëpp gisaguma ci kenn loolu laa doon rêvé kon loolu doon mbir mu am solo kon daal maa ngi soññ sama bopp di soññ sama ñëpp waaye di ñaanal sunu jëwrin yii nag sëñ daam mii waaye sëñ Abdou Fall mi nga sunu coordinateur la du ci lii dong la ñuy coordonné lépp lu xew ci réew mi sëñ Abdou Fall dañuy coordonné di ñaanal kenn ci sunuy jëwrin muy sëñ Maam Mor Mbàkke mu sëñ Murtada nga xam ne fu mu toll lépp lu baax lu mu xam ni war nañ caa nekk dana nu ca joxoñ soññuñ ca ni na ngeen ci dem ba jeex ndax lool rek la fi sëñ bi li fi jëf daal yomb na li fi sëñ bàyyi lu leer naan ñi la ndax lii ñu fi indi yóbbu leen ko seeni kër kon nag nun ñu ko fi indi bu damu mukk ni indi nañ fi dara ndax loo xam ne boo ko indee buñ ci suukaree lu mat fukki fan segam dana ko mat ca lay yam war ngaa xam ne la ca des bari na te ñeneen ne ko fii indi te noonu li nu reewee fas ko yéenee am mooy fexe ba indi fi loo xam ne ñëwee dañu fax dañ naan at mi yëpp suukar dees ko indiwaat ci jumaa ji yàlla nañ ci yàlla li hôpital bii sëñ bi wax itam ñi may dégg ñi sama kàddu fu man di yegg yaakaar naa bari na dëkk yoo xam yóbbu nañ fay ambulance ñu xam ne danañu soxla woo ambulance boo xëy bu méngoo ak jumaa Tuubaa la bu méngoo ak jumaa yi nag laa wax waxuma boo xam ni ambulance capp-cappal la te wóor na ma nun ñi nga xay noo nekk Emilia Romagna buñ ci doxee war nañ koo mën a am yooyu yëpp nu bàyyi ko xel du luñu lu xëy dañ naan tey tey nu am ko waaye nan dox jëm ca kon sëñ daam euh, comme da noo jox kàddu gi nuy ndaw loo xam ni xëy na yéene nu ko li ma lay wax ne la toujours da ngay sa daraja jox nu waaye noo lay ñaana fu nu toll yal na sa yal na sa yal na sa euh, kartan dolliku di la siyaaraat bu baax a baax nag ndax jamono yi ay xat-xat yu bari nuyu na la waaye lépp téwul nga boole ko laxasaayu sa ngëm sëñ Tuubaa kenn xamu ko ci yow jërë ngeen jëf. bismillaahi rahmaani salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ Abdou Khadir Dia asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa gi toog di sëriñ Cheikh aw Balla Mbacke moom Cheikh Ahmadou Fadal di ci teg sëriñ Afia Bousso di leen siyaare bu baax a baax. di ne jël nuyoo bi nag teg ko ci luyo euh, ci loxob sëñ Abdou Lahad maam asta mu tegal ñu ki mbooleem waa Muxaddamatul Xidma gépp di wax par euh, présenté waat délégation bi comme ni ko sëñ Abdou Khadir Dia waxee léegi rek di nuyu suñ kilifa suñu sëriñ sëriñ naa Mbàkke mi nga xam ne mooy jëwriñu Emilia Romagna Marche ci ndigal Cheikh Mouhamadou Mourtada ak sëriñ Modou Boussa Dieng mi nga xam ne moo ko sampaloon ci suñ kanam bi mënta ñëw it moo tax mu yebal ñaari rakkam yee ñu ñëw ànd ak ñun taaral suñu jataay muy sëñ liilu ak sax Mamadou Mourtada euh, sa baay Seex sëriñ Seex Awa Balla Mbàkke ñoo ngi lay santaat bu baax a baax di ñaan yàlla guddal saw fante wéral la ndax liggéeyub sëriñ Touba bi yow yaa ñu ci boole liggéeyub sëriñ Touba nag ku la ci boole amatoo payam bi ñu koy yëgalee wax ko sëñ Seexu naa ay kopp nga ñu waxoon at mooma andi nañ ay kopp ba nga dellusiwaatee ca déwén sa ñu tasoo gaa Brescia nga ne gannaaw bu ngeen fa dajee day bari kopp yi day bari yéen tànnal nañ leen sukkar te ngeen a def sukkar ñu ne la nangu nan ban ca doxee daaw ñu indi woon euh, cinquante deux saaki sukkar ren nag indi nañ soixante et un saako yu sukkar muy ñetti euh, fanweer yi bëri ko ak juróom fukki kilo loolu lañ indi ren barkeeloo ko fas yéene nag ni ko sëñ Abdou Khadir ja waxe Emilia Romagna mark lépp luñ dugg te def ca jom def ca pas-pas ca dox ca information bi jàll yaakaar naa danañ ca am lañ bëgg ndax ku dem ba jënd kër sëñ Touba goo xam ne mat nañ mat na milliard a genn wàll buñ ne lee man buñ ne mën ngaa jënd euh, dix tonnes suukar wala wala douze tonnes suukar xam nga ne mën nga ko kon li ci des fexe ba information bi jàll kon jëwriñ yaa ngi nii sëñ Cheikh Kandji moom niñ ko waxee du ko baamtu mooy jëwriñi kër sëñ Touba sëñ Baye Dame Diouf mi sama rak moom itam ci jawriñi la bokk sëñ Mor Cissé mii féete woon booru Réwana yàlla def mu toog Sénégal léegi moom itam sëñ Abdou Fall nag mooy suñ coordonnateur fii moom lépp lu ñu lu ñuy liggéeylu moom buñ ko woo rek moom bu dee Sénégal moo koy dox yaakaar naa dix ans mu ngi ko bëgg a def ci réew mi ba mu toog ak léegi waaye lépp lu Emilia Romagna marque di doxlu moom la ñu woo mu doxal ñu ko kii sëñ paap Diop moom itam léegi bi muy ñëw moo indaale saaku sukkar boobu nga xam ne moo ko nekkal soixante et un saaku sukkar kon sëñ euh, Cheikh loolu mooy liggéey bi nga xam ne andi nañ ko teg ko ci sa loxo nga tegal na ko ci loxo sëñ aafe nu nu barkeeloo ko ren lu lu fi dikkaati tam fii ba ba weer wi dee danañ ko andi ndax dañ koo fas yéene ànd ak yéen rek ànd gi nag lu dikk rek dañuy tàmbali andi ko lu dikk ñu ànd ak yéen ba ba bañ tëj koor gi buñ tëjee koor gi nag lu fi des ñu waajal ko mu jëm déwén. hôpital bi tam sëñ Abdoulaat maam maam Asta wan nañu ko dugg nañ fa vérifié nañ ko. lépp luñ gisati loo xam ne baax na ci ab hôpital danañ fexe ba fab ko andi ko andil leen ko jox leen ko ngeen dugal ko ci liggéey bi ndax wax nañu ay ambulance waaye ambulance ku ko wax da nga wax ay garab danga wax leneen da nga wax leneen bi ma ko waxee barki démb bi ma fi duggee rek man am na benn appareil bu ma yoroon sama kër ba ma ko gisee rek dama ne fii moom jumaa jala yaayoo ñëw di ma jaale sama doom bu woon ma daal koy jox ma daale. sofaat suñuy kàddu ñu bàyyee woon rek mu mel ne ni ma ko waxee rek fi ñu toll woon dafa tase waxtu julli jot ñu dem julli ji. ba ñëw taseek itam suñu mbokk suñu xarit di bokk ci jëwriñ yi Baye Talla Diop di door a agsi di rakki Baye Koso Diop ci Belaria moom moom itam di bokk ci jàmbaar yi liggéey bi liñ ciy teg rek ci ndigalul sëñ naa di soññ mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñu ngi ci Emilia Romagna Marche li dale Bologne ba ba ngay dem Pescara bépp président daayira bu fi nekk wala coordonnateuru daayira wala képp kuy yëngu ci liggéey lislaam yi rawatina daayira Seexul Xadim yi na ngeen xam ne noo ngi leen di soññ ci liggéey ak daayira maam jaara yi danañ ci ñëw sax euh, ñoo ngi leen di soññ ci liggéey seexul xadim bi nga xam ne moom lañ sëñ seex aw balla jox muy sukkar siñ war a jàppale waa mu xadimatul ma ci weeru koor fexe ba ñi fi dog ndogoo si li ñuy ndogoo la koy sukkar mu jóge Émilie Romagna Marche loolu la ñu bàyyi euh, sëñ seex aw balla wax nu fas ko yéen a fannoo ko te fas yéen itam matal ko te dégg ngeen léegi ni ko jëwriñ waxee sëñ Abdou bu so waxee na bis bu set daañu sukkari juróomi saakuy sukkar ci weeru koor kon xam nañ ne cent cinquante saakuy sukkar la la la weer wi di soxla lu mu néew néew néew te bu ñu nee cent cinquante sukkar lu mu néew néew war na noo indi deux cent saak ndax sukkar si wërta yam ci jumaa ji dong kon Emilia Romagna Marche nan xam ne danoo tàmbali rek danoo tàmbali ko tàmbali nag da ngaa fas da ngaa war a fas yéene àggale kon nag nan ñaan yàlla sëñ Cheikh Awa Balla nga dogal ñu ci barkeb Cheikh du faadal ci ndigal li nga xam ne ci yow lañ ko jógee mu jaar ci sëñ Cheikhouna Mbacké suñ jëruñ ñëw ci taalibe sëñ Cheikh taalibe yi nekk ci Emilia Romagna mark ak jullit ña fa nekk ñëpp liggéey boobu ñu mën koo matale duñ wax ba daaneel nag te jë euh, te soññiwuñ daayira maam jaare yi ñu ci jàmbaar lool ñoom ñëpp itam seen participation ñëw na la dale Bologne ba suñ tuddee euh, soxna Nday Kebe mi nga xam ne mooy président fédération bi rek dana doy mu yóbbaale mboolem jigéen ñi bu ñu defaat yeneen vidéo danañ ko yaatal sëñ Abdou Khadir Dia waaye soxna Nday Kebe euh, soññ euh, soññil ñu mboolem jigéenu fédération Émilie Romagna marque yëpp aju ci daayira Maam Jaara yi ñu xam ne liggéey bi du liggéey góor képp liggéey góor ak jigéen la liggéey bu mag ak ndaw la képp ko wax asadu an laa ilaha illa muhammad rasulullah te gëm liñ dige ci dogal nit ci weeru koor sa ngi ci kon noo ngi nii ci kanam suñ aw Awa Balla suñ bu Bousso ak mboolem jëwriñam yi mu àndal liggéey bi jébal nañ léegi liggéey bi noppi ñoo ngi leen déglu lu ñu jàjje nag nu fas koy ne dund ba ban fii del siwaat déwén incha allahu rabbi kon jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah wasalaa salaam wa sidna Muhammad umi wa sabi xadi wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bokk jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi dool leen nuyoo di teg tàmbali nuyoo bi suñu affaire mi xam ne suñu kilifa xam naa maa ngi dégg rek ñu naan Balla ak suñu affaire dañoo Balla wala ñu wax suñu affaire ba toog lu yàgg lool doon Seexu Balla mm-hmm. ndax euh, yu bëree bëree bëri yoo xam ne ndax moom moom jàngal gannaaw bi mu kilifa gu ci ci ci ci bokk gi daf jàngal kon dañoo war a wax suñu affaire ba toog ab diir ba mu dal ñu doo tudd Seexu Balla kon ñu ngi tàmbali ci turam di ko dollee cant ci liggéey bi nga xam ne sama borom dafa teg ci loxoom mu ànd kook sama bokk yi nga xam ne ñenn ñi ay rakk lanu waaye rakk yu alhamdulilah rabbil alamin ak i ngoog te doom waaw waaw ñoom daal laaj nañ ko àndal muy liggéey boo xam ne liggéey bu jafe la. ndax euh, xëy daanaka bu ñu xëyee waxtu bi ñuy xëy ak wañu got ci bu ñuy delluwaat kës kër gi jàpp naa ne seex ma mënu ko kon ñu ngi leen ci masawu coono di xam ne liggéey la boo xam ne ñaan sama borom moo gën a yàgg rek. Euh, di sant na bu baax a baax ndax bi ñu junjee lu mel nii jàpp naa ne euh, bi ngeen may junj lu mel nii. xamuñu ci yéen laa bokk rek taxoon muy tàmbali bu njëkk ba ngeen junj ko ma wax ko ñam ma tamit comme alhamdulilah rabbil alamin ma wax ko bokk yi rek bokk yi def lañ man bi ñu demee lépp lii taxaw tamit ngeen junjaan ma ne wa ci nga bokk loolu maa ngi sant sama borom baax a baax ndax mbir boo nekkee ca cat la ñu xëcc la ba ci digg bi ne la ci bokk sant yàlla la. ñu boole ñu ci baax bañ tàmbali ca ñu koy tàmbali na ma ko nettali at bu nekk rek xalaat la bu ñu xalaatoon ca Bérésia rek xalaat bu ndaw a ndaw boo xam ne gëmoon nañ ne war naa mën a romb ba agsi bi tey ñu wax ko ci mbooloo ma doomu benn sëtub si mu far xar yi moo génne juróom fukki euro jox ma daal di tàmbali loola bokk taal yi bokk yi dafa nekkoon dajale ba ma deux cent ma jox suñu xaari mbay muy dox di dox ba ngeen yàgg lool ba dem ba mbir ma xaw yaatu yàlla dogal ma ñëw Rimini ba ma ñëwee toog suñ suñu daam mii juñu ko ko ne ko day wax na waa Bérésia day ngir kopp yi nga xam ne moom lañu dogoo te mu seet Sénégal lool ñu judi ci liggéey suñu daam moom loolu moom jur agré dañ koy dañ moom maanaam ba suñu seex nga toog suñu seex toog ci ca dëkk kër ga dangay ngay bàyyi mbooloo mi ñu wax ba mbooloo mi ñu wax ko ñëpp nekkoon bisimilah waaye ni nga ko waxee léegi rek bañ ko jógee tàmbali ñoom dañoo indi waa Berisa indi copie maanaam am na fi na fi at. Mm. ëpp na fit ba <laughs> doy waar. ñu xalaat ne suñu demaatee foofu kat war nañu wax ak ñoom ñu seet gox bu nekk la ngay tàmbalee ñu tàmbalee ko xanaa noonu la suñu jobloon ñu waxtaan si mooy kilifa ga xanaa si ndam leen kat kon jàpp naa ne ku mënoon fexe ba am kafe laa tàmbalee wax ak ñoom ñu ne ak café dara di kon nañu wut suukar suukar moom yaakaar ne dañ ko mën a ki yaakaar naa kuy def benn bés nga def ñaar def ñett booyee dinaa fukk dafa am nag loo xam ne dama dama dama ci kër si tuuti ngaa wax ne dañoo indi suukar si nga jàppale Moukhaddamatoul Khidma déedéet yéen jus ab ab jus ngeen ci ci Moukhaddamatoul Khidma maanaam waaw ci ngeen bokk di ngeen am fu ngeen féete ñu féete feneen bi ñoom dañu fii dañu ñu defaral li ñu bëgg li ma mënut itam nañ fexe ba liñ war a complété ngeen def ko ñoom ñoo ngi fii bàyyi lépp hmm? na loo xam ne kon complément doon maanaam lay euh, doon complément nag ci ngeen bokk xam ne ko yéen yor lii ñoom yor lii hmm. waaye jàppale day gàtt jàppale day gàtt lool waaw bopp waaw ñëw ñu wax loolu waaye alhamdulilah maanaam da ngeen complément complément la bu fekkoon ne euh, xam naa leen ñi ñi nekk fii xam naa leen yàlla dogal na seen dong bi nga xam ne moo jiite foofu ci yéen xam na ne suukar moom lañ ciy jëfandikoo ci ñoom ñii alhamdulilah rabbil alamin kon ñoo nekk ci barab bi seen dong bi nekk fa ji jiite foofa ñu ñu seen leen suukar si kon suukar dina jomb ci kon sax waa Mbàkke fa leen di jiite waaye mbusoo fa jiit mbusoo bi si si naa na kon mbir maa ngi noonu day wax na mbokk taal bi nga xam ne rek ñu ngi koy dégg te xamaguñu lu mu doon mën naa am waxi suñ Mbar Joja wala suñ taal wala suñ daam wala keneen danañ wax ngeen dégg waaye yàgg naa wax ak yéen yàgg nañu wax ak yéen ci leneen du dul lii waaye lii ci spécial la jumaa ji jumaa ji ngeen gëstu taarix ba xam nu mu demee woon bañ koy Cheikh Moussa ko taxawal jëf jooju ñu defoon Cheikh Moussa defoon ci tàmbalee ba tey jii toog suñ jotaay tey bi benn benn rek la amul lu ci yokk. Cheikh Moussa dafa tàmbali woon ngir bëgg a samp jumaa ji def ko ba jumaa ji nekk lam nekk jumaa sëñ bi topp ci moom Cheikh Moussa ñëw def ci lam ci def ba mu ak ba mu ba mu doon jumaa léegi nag jumaa yi la koy defar la koy taaral moo fi jaar ba tey rek ba yegg naa euh, dégg nañ ci jamono Cheikh Saliou wala boog suñ fa la soo ko woon dégg naa ko ci bandam mu ne sëñ bi waxoon ne ku ci feeñ feeñ ba faaw ku ci nëbb na du feeñ comme tabax nañ ba mu jóg ba euh, ñu baax ñi ngi fi julli di julli ñu taxawalaat loo xam ne euh, wax nga ko léegi waaye boog ñoom ñi nga xam ñoo jàngoon waxoon nañ ma ne jox ñu jàmm rek euh, ak tuyaaba jooju mën ko mën ko mën ko misaal ci waxin waxin ñu dem ba euh, weeru koor nga dogal doomu adama ñu tàmbali fi loo xam ne bañ koy tàmbali jàpp naa ne dañoo waxoon ne foogawuñ ko woon nii ndax dañoo woon alxames ak dimanche li ñuy def bisu mag yi def ñu bis bis bis yu ndaw mujj ñu def bis yu ndaw bis yu ndaw léegi biti bi yaakaar naa ne daaw jéeg bi ñuy wax euh, ñett saako la ñu def biti ñett saako suukar la ñu daan def. par bis boobu 32 millions la woon. kon ñu ci juróomi saako léegi kon la xam nga ñaata bis la ñu wax ne euh, téeméer saako lañ soxla neel million saako lañ ndax luy dox la. kuy dox nag. te taxawut mbirum suñ tubaa nag du doy tànk day daw da ngay jéem daw topp ca. du taxaw moom kon bokk taal bi nga xam ne liggéey la boo xam ne moo ak jumaa ji ànd nun dañuy liggéey topp ci daw ba suñ mat jot ñu dem bàyyi fi ñeen ñu continuer ko nañ fexe nag ba bañu yaafus ñuy ñëw di raw nañ fexe bu ñu bind bu ñu tuddee ñooñu rek ndax ba léegi si ñuy waxe yéen nii jotaguñu jotaguñu ku jot mag ña ñu ñu ñun kon nañ fexe ba ñuy ñëw bu ñëwee xooluñ ci mag ña rek ñaanoon sëñ bi àgguñ seen tànk àgguñ sax seen i uh, asar kon nañ fexe ba ñuy ñëw bu ñuy lim booleñ ci ñooña mooy ne fi ñu tollool ñun ñu waxe ko noonu rek te jaxale foofu la sëñ bi waxoon suñ ko yaakaar ne nañ waxoon na ko seel xadim ma déggee fii lañ yem nga yem lañu fi soo ñu romb la romb foofu nañ jël kon wax jooju teg ko suñu kanam te dox nag di ko sabablu li ngay ni wàcc fii ren muy ñetti tonnes fukk fan juróom la xanaa fukk fan juróom la calculé la suñu laa waxoon fukk fan juróom la mooy kon nga xaaj na kon te am nga loo ma waxoon ne ma yemuñu fi dafa am lu ñu lu ñu mën naa am yeneen wàccaat ci balaa ndax bi bi wax booba si bafal booba kon nañ jàpp rek balaa weewee dee sax bokk yi mën nañoo daajuwaat ñu àggale ko waa man daal li ma waxoon laay waxaat daal suukar su ko daal moom sa kenn féetewoo ko yéen yéen yéen waa Romaña du ma sase nag man ndax amuma droit ji waaye sama sëriñ sama kilifa gi nii mooy ndigalal barab bi ñoom seen bilaat ñi la jox liggéey bi luñ ciy def mag ñoom ñoo koy déggoo di ci waxtaan a yéen moom moo ne ngeen te bu ngeen génnee nag ni ngeen def suuga si moom ñu ngi ñaan sama borom jàpp leen ci ba kenn du ci defat leen rut Ibrahima Madior hmm? loolu moom at bu jot ñuy yokk di yokk bu yàggee dañ dem ba euh, ndax ndax fi ne nii alhamdulilah rabbil euh, am na ci jëmm joo xam ne bu ñu waxee mënuma muraake bañe ku baax ki xam ne ma tudd am na lu ñuy xàddee loo xam ne lii <laughs> waaw ndax xam nga nit moom da waaye waaye daa ko yóbbuwaat waaye du du ma ko yóbbu du yëpp yi ne boo xoolee da koy sabab xam ko alhamdulilah kon nag yàlla na yàlla jàppale ñu seet santaan nag bokk taalibe yi ndax lu rëy la bañ koy wax bañ koy wax wax ja oyofoon na lool waaye dégg nañ ko nu diis ba tax na jëf lu mel nii kon suñu affaire liggéey bi jébbale nañ ko tàmbali nañ ko tey tàmbali waat nañ tey lu jàll la fàtte nañ ko fàtte nañu jàll man maa ngi ko waxal maa ngi ko waxal la jàll fàtte nañ ko suba li ñu xool lu ñu fexe ba li ngeen bëgg am mu mat ndax bëgg-bëgg suñu tubaab moom fa fas daw si saw dax rek ku leen waxoon ne da ngeen mën a indi ren ji ñetti tonnes ca ca démb da nga naan ah, loolu jafe na te ren la suga gën a seer ndax ñetti tonnes yi bu doon démb dama juróom-benn tonnes juróom-ñaari tonnes kon suba dañ xam ne rek suñ tubaab yi liggéeyal te jumaa ji li ma waxoon léegi rek suñ tubaab waxoon na ne ku ci feeñ feeñ ba faaw ku ci feeñ feeñ ba faaw waaw kon nag sa savaan mooy savaan ba. Mm-hmm. yàlla mu yàlla musal. di sant bokk yëpp. yéen nga ne soññ bopp ba luñ man ren saa borom mën lañ ko déwén mm-hmm. te ñu def at yu bari loo ànd ak kilifa yi nga xam nag ñooy yite fekk laaj fallu asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Afia Bousso ak turu mboolem daayiratu Muxaddamatul Xidma nuyoo bi nag ñu di ci jiital sunu sëriñ sunu kilifa gi toog di sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadil di ko ñaanal fan wu gudd ak wér-gu-yaram eh, ni mu taxawee ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi sëriñ Abdou Lahad leeral na ko léegi jarul ñu di ci dellusiwaat waaye ku ne gis na ci ku ne teg na ci bëtam kon dañ koy sant di ko gërëm ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci lu mu war a taxaw waaye ci nangu gém nangu warte fi ba jëf ko ci lañ koy sante di nuyu ak ziyaare itam Serigne Cheikhouna Mbacké mi nga xam ne ab taxawaayam rafet na lool ci liggéey bi euh, mu yebal fi rakkam Cheikh Mouhamadul Fadil ak Cheikh Mouhamadul Mourtada Serigne Dame ñu ngi lay nuyu di nuyu kilifa yi nga àndal yëpp di am mbégte lool ci teewaay ci jataay bii ngir li sëriñ bi wax léegi jëbbale suukar si nga xam ne tànnal na leen ko dama jàpp ne nag da leen a faral ndax suukar moom daa mel ne moo gën a neex ci yi ñuy jëfandikoo. kon su leen tànnalee suukar dafa bëgg seen mbir neex te jàpp nañ ne itam fu fu fuy neexal mbir fii ci na gaaw kon suukar si jëm si fii gën jàpp leen ne luy neexal seen mbir lay doon dégg naa léegi sëñ bi tudd xat-xat dégg naa mu tudd jafe-jafe waaye jàpp leen ne suukar moom lu neex la fiñ ko indi fuy neexal mbir la liñ koy defit lu ñuy neexal la kon jàpp naa ne lu neex rek lay mën a jur kon incha allahu taala lépp day gën a baax ñu ngi sant nag bu baax a baax a baax maa ngi koy wax sëñ Abdou Lahad mi ngi leen koy leeral léegi daaw ci kooruk daaw jëfandikoo nañ ci lu toll ci 160 sacs suukar léegi laa ko woon rapport bi nii mu toll ci 4 euh, millions 600 nangam mille ci daaw ni ko sëñ bi waxe woon léegi buñ xoolee ren suukar mel na ne yokk na waaye teewul euh, tey jii bu mën nañoo wax ne sulus bi maanaam buñ ko xaajoon ñetti xaaj benn ba ak lu topp ñëw na mosuñoo tàmbali nag di dugg ci koor gi am lu yóbbu fukki fan ci ci ci suukar tey la njëkk kon ak cant yàlla gu la waaye xéwal la gu rëy gu leen sëriñ bi defal tey jàpp nañ ne li ngeen ko waxee léegi du fi yem ubbi gi it ak cant la ndax mel na ne bu ubbee te ubbee nii dana dalal xelum ñi nga xam ne ñëw séntu jàpp na la cay topp noonu rek lay demee ci ay xéwal sëñ Blaat wax na ko léegi bisaab bi moo fi jiitu ñoom nii ngeen def lañ def yokk nañu indi nañu lu toll ci juróom-ñetti fukki saako ak ñeent Euh, euh, ci ci bisaab muy 84 di lim bu am solo waaye yéen itam andi ngeen lu toll nii ci suukar di 61 sac di 3 tonnes 50 kon nag ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm te di leen ci ñaanal di leen xamal ne fas nañu yéene mu tàmbali liggéey bi ñemewuñoo wax ne de moom la ñuy tàmbalee ndax Cheikh Mouhamadul Mountakha dana indi suukar te suukaram la ñuy tàmbalee waaye nag fu ñu ko tàmbalee seen sos lañ ciy teg te loolu doy nag yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax ku sëñ Tuubaa jàll nga topp ca jàpp naa ne da euh, fu lépp agg da fa àgg kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tey ñaan lii nii leen sëriñ bi ñaanal mu mu gaaw agsi moom day agsi moom ndax sëñ bi ñaan na ko ba noppi tax gëm nañ ne day agsi waaye nag na gaaw agsi te jig leen te jig nu dañ dajaa fa at yu bari ci barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi ñu seetaan kon déglu ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ne bàyyi na ci eh, sunu bokki taalibe yi di sëriñ Abdou Khadir ak sëriñ Daam lay waaye kàddu yi nga xam ne bàyyi na ci sëriñ Cheikh Awa Balla mu Cheikh Amadou Fadal ak sëriñ Abdou Lahad mi doon wax ci turu sëriñ Afia euh, kon dañuy jàppale sunu bokk yi rek ci soññe bi ci bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci Emilia Romagna Marche euh, muy Rimini ak li ko wër waaye bokki taalibe yi nekk Italie yëpp tamit nag tey dégg suñu kàddu wala ñu koy gis euh, liggéey bi nga xam ne Euh, euh, ñi ngi koy liggéey muy suukar su jëm si dog yi yi ci jumaa ji euh, ni ko sëriñ bi waxee léegi jàpp naa ne bàq bu tooy la boo xam ne ku ci ji da am gàncax gu gu baax suñu xoolee ni ko ni ma ko waxee léegi suukar si daanaka day jël fukki fan ak lu topp suñ xoolee daaw ci rapport bi nga xam ne mooy rapportu daaw bi cent soixante sac lañ lañ lañ suukar lañ suukaree daaw cent soixante sacs yooyu boo ko xoolee bis bu nekk dalay jox eh, ñeenti saako ak lu topp maanaam ñeenti saako ak lu topp suukaree nañ ko bu dee bis yu mag yi nag lu mel ne ajjuma yi léeg lekk ak laylatul xadar <laughs> dañuy suukaree lu mat juróomi saako ak dangam loolu nag daaw la kon xam ngeen ne kon ren loolu loolu la ëpp kon bokki taalibe yi nga xam ne ñi ngi seetaan vidéo bi te defoon seen jëf ñu xam ne jëf ji agsi na ci jumaa ji muy suukar si kon ñi nga xam ne ñi ngi aju foofu yëpp ak ñi ko jege ak ñi nekk Italie ñëpp te bag cee def seen jëf nañ jokkoo ak ñoom suñ daam te xam ne liggéey bu ubbiku la boo xam ne euh, mi ngi fi noonu lañ ko mën a leerale ci lu demee ne li sëñ bi doon wax léegi ci wàllu mburu ndax boo dee xool fi ne daaw mburu mi mat na 69332 maanaam juróom benn téeméeri junniy mburu ak juróom ñeent ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar loolu nag soo ko diviser ci mburu wu nekk nga dagg ko ci digg bi xam naa sëñ moom <laughs> dana mat cent trente huit mille six cent soixante quatre maanaam cent trente huit mille six cent soixante quatre personnes yoo xam ne dogoon nañ fi waaw loolu soo ko xoolee bis bu nekk day day jumaa ji day recevoir lu mat quatre mille six cent vingt deux maanaam ñeenti junniy nit ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar loolu nag kon liggéey bu yéeme la boo xam ne yokkute gi doy na war mbokk yi bu ñu fàttalikoo sëriñ bi bi mu nekkee ci géej gi waxtu jog dog di jot amut lum doge mu rocc xobi garab tucc tuccal ko ngir jàllale ko ngir mën a dog tey jii jumaam ji lu mat ñeenti junni ak juróom-benn téeméer ak nangam di fi doge bis bu set ah loolu moom jàpp naa ne ku ci sa jëf dugg ah, am nga tawfeex ju rëy rëy rëy kon yàlla yàlla dimbale te nangul ñu suñuy jëf te fulal ñu ko barakati xaadim rasul kon mbokk yi ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax it sëriñ Maam Mor mu Cheikh Amadou Mourtada di ko seereel kilifa yi ndax dafa jàpp ci liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma lool ci wane ko ci bitim réew ndax ànd naak ñun ay yoon ngir yóbbu ci mbooloo yi ñëw nañ Rimini ay yoon yoon ngir mu toog ñu leeral liggéey bi te loolu jàpp naa ne bokk na ci li tax ñu xam ko ci bitti bokk na ci ñu xam ñu tax ñu xam ko suñ Seexu Balla mii nii mu leen sante suukar si moom mi am na bis boo xam ne bisu boppam la xam naa du ko wax waaye am na bis boo xam ne bis la boo xam ne moo ko tànn su ñëwee lépp lu ñu fiy ndogoo moo koy financé waaw moom mi am na am na bisu boppam boo xam ne loolu nag waaw. waaw ak ak mbooloo mi mu ko àndal bis boobu moom la ko sëñ bi di leeral léegi naan bëri na yu mu fi indi bañ dugub yaag <laughs> caaf yaag muuraake yaag ya ca des ak ya ca ya ca aju <laughs> muy bis bu neex boo xam ne dañ koy yàkkamti lool waaw kon ñi ngi sant yàlla bu baax bi mu ñu boolee ci liggéey bii nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Sëriñ Tuubaa fii xam naa ne nag du ndamul kenn képp koo xam ne dugg nga ci rek taw feexi Sëriñ Tuubaa la ak ndimbalam taw feexi Sëriñ Tuubaa ak ndimbalam tey nit mën naa am ay milliards wala mu am ay millions te benn dërëmam du mën a dem ci liggéey bi ku ci sab dërëm dem rek Sëriñ Tuubaa la neex ndax fii lu sellul du fi dugg te Cheikh Abdou Khadir waxoon na ne fii kat jëf dafay sekke xaw fan la jëf baaxee waaye fii moom jëf dafay sekkee sekk nag xam naa ni ñu yàgg kaas cere war nañ koo xam boo amee sa cere ju tuuti moom def ci ndox boo bàyyee ab diir bu soobee yàlla xam naa ne dana dana sekki lool waaw. bu ñu la waxee nag lim bi nga xam ne danañ ko fi jëfandikoo ci suukar muy cent soixante nangam dana dana jaadu ñu leeral la ñaata liitar la ñuy suukar ndax fi ne boo dee xool mille six cent liitar danañ ko suukar par bis bu dee ajjuma boo ko xoolee par ajju bu dee bu dee euh, ajjuma ji bisu laylatul xadri ak ajjuma ji dana mat deux mille litres par deux mille litres danañ ko suukar kon mille six cent litres boo boolee bisab jinjeer kafe meew ak ataaye soo ko xoolee bis bu nekk danañ suukar mille six cent litres litres bu dee ajjuma wala bisu laylatul xadri day mat deux mille litres loolu nag lépp dara du des lépp dañ koy jëfandikoo maanaa léeg-léeg sax dañuy dañuy wëraatu di di jox nit ñi loolu nag tawfeexi Sëñ Tuubaa la ni ma ko waxee léegi rek jëf ji Sëñ Tuubaa nangu la kon yàlla nañu yàlla nangul jëf ji te ñu bañ cee gis suñ bopp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di soññ ñëpp suñ borom defal ñu tawfeex ak taysiir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu man zanna xayra llahi yuxni aw yadur فساك في الدارين سوكة الودر من سن خير الله man la tax di